aw solo bi yaatal mbindum alxuraan am solo yu bëree baree bari la bokk na ca mooy eh, li tax objectif bi li ko waral mooy mbind moog alxuraan ñoo ànd moog jàng eh, suñ borom bañ na ko ba eh, giñ ci aw xaraf ci xarafi alxuraan yi loolu moo tax sax ñu euh, jël li ñuy wax chiar chiaru euh, euh, concours bi tuddee ko nuun wal qalami wa ma yasturuun kon loolu li mu ñuy andil mooy ndekete jàng ak bind ñoo ànd kon loolu manqué gum manqué ak des ginnaaw gum tàmbali wan des ginnaaw moo waral concours bi kon léegi gis nañ ne njariñ li mi ngi tàmbali feeñ ndax nit ñaa ngi gën a yittewoo bind ci daara yi xale yaa ngi participer ci taux yu xaw a yëkkatiku ak mbind mi itam qualité bi di gën a yokk loolu mi ngi wane ne kon euh, alxuraan mi ngi dellu si ci wàll googu nga xam ne mooy njëriñu mbind mi. benn bi ci des euh, critère de sélection yi euh, képp koo xam ne nii dafa bëgg a bokk ci mbind mi comme niñ ko waxee woon ci njëlbeen mboolem Sénégal yëpp dañuy def appel à la candidature képp ku bëgg a bokk. Euh, da ngay bind yónnee ci adresse biñ la jox boo yónnee ñu xool ko def dépouillement def nañ ko ba passé nañ ko su boobaa dañuy xool ñi ci jël am nañ quarante personnes yoo xam ne ñoom ñoo ñëw tey pour def demi finale bi ñooñ ñooy bind tey jii bind nañ ba eggal léegi ñooñu nag ci seen biir la ñuy doog a tànnaat ñu war a dem ci final. waaw tour tur boo ko déggee rek euh, concours yaatal mbindum alxuraan yaatal lu fi nekkoon la waaye dafa xat ndax dem nañ ba gis ne. daara yi ñu bëree bëri dañuy mokkal alxuraan man ko tari waaye Fatiha sax boo leen ko binduloo duñ ko mën a bind loolu nag ci gis-gisu directeur C3S muy Serigne ci la gisee ne lii nan leen taxawaay lañ ci war a def ba gën koo mën a taxawu. tuddee wuñ ko delloo si ndax kon day mel ni nekku fi waaye yaatal lañ ko tuddee ndax dem na ba diggante yu xat ci réew mi ñoo ko yore ñu bëgg ko yaatal ba mu daj Sénégal kon yaatal googu moo tax ñu tuddee ko noonu mi ngi yaatum waaw façon mbind yi ñuy def mooy mooy mbind yi nga xam ne mooy mbindu cosaan mbind yi nga xam ndax bind dafa am ay xeet bu dee euh, waa Turquie am nañ mbind bu dee waa Kuufa am nañ bind bu dee waa feneen am na bind waaye Sénégal am na mbind muñ ko xame woon ca mag ña ba léegi ci lañ doon bindee kaamil di ci bind mboole maxtuutaat yi li fi nekk yëpp ci la nekk foofu nag lañ delluwaat pour bind ci mbind ci façon bind boobu nga xam ne dañ naan lii mooy mbindum Sénégal suñ ci bindee kaamil tey ba génne ko ci àddina bi fu mu dem dañuy xam ne mbind mi mooy yax bi waa Sénégal moom ndax mbind mi alxuraan moom benn la waaye ku nekk nag mën nga am sa yax te ñun am nañ suñu bos boobu nag moom la ñuy promouvoir. sujet yi ñuy tànn euh, scientifique bi dañuy dañuy toog waxtaan euh, xool ndax euh, xale bu nekk ci ñi doon bind tey jii kenn ku ci nekk. dañ lay bindloo fukki ligne ak ñeent fukki ligne ak ñeent yooyu ñu ngi koy jëlee ci mushaful madina mooy kaamilu Arabie Saoudite boobu nga xam ne boo ci tànnee dix quatorze ligne ñëpp koy tollale ku ci nekk maanaam liñ lay bindloo. doo xam fu mu tàmbalee ak fu yam lu dul biñ la joxe bi nga ñëwee kayit bi yaa koy jëlal sa bopp léegi li nga war a bind bopp bi fi mu tàmbalee ba mu yam def nañ ko ci lem nañ ko boo ñëwee boo ko jëlee rek dangay xam ne yow lii nga jël moom nga war a bind. ñi lay saytu tam dañuy taxaw xool xam ne liñ la bind loo moom nga bind boo bindee ba noppi lépp ay numéro la waaye ñun ñëpp xamuñu xamuñu. ku nekk lu mu bind ñoom itam kenn xamul lu sa morom bind duñ jege duñu laalante kenn du waxtaan kenn du dimbalante léegi buñ noppee nag ci la ñuy xam ne lu waay man rek ñu xam ne lii nga man waaw euh, commission bi lool lool ñàkk amul ñàkk amul ndax fiñ tàmbalee ba fiñ toll kenn ku ci nekk euh, am na lu la concours bi C3S am na fu muy jaar ak yow ak nu muy def ak yow waaye li fes dëgg-dëgg rek mooy ñii ñoom ñoo jiitu jiitu bi nag bokkut ak gagné nga doon nga doon xeex gagné wala da doon bëre daan dangaa jiitu ndax bi ñuy xool kan moo jiitu dañuy sonn lool pour xam ko jiitu kon li ñu rawantee bëriwut manante bi bëriwut su ko defee ñooñu feeñ nag ñoom la ñuy wane li ñu am ak liñ leen jox waaye ñeneen ñi ca des ku ci nekk am na lu mu am loo xam ne ànd ak nag expérience am ak xam-xam ak li ci aju waaw moo tax kenn kenn pertul anta bi ni'mati rabbika bi majnun